soit un taux de positivité de 8,79 pour cent. Les tests positifs sont répartis comme suit. 100 contacts suivis par nos services. 4 de la transmission communautaire et répartis entre Pikine 1, Ben Tally 1, Sédhiou 1, Vélingara 1. 23 patients hospitalisés est déclaré guéri. Six cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 12e décès lié au Covid-19 le mardi 5 mai 2020. Il s'agit d'un homme de 37 ans. le ministère de la Santé et de sociale prie le bon pour son repos éternel au paradis et présente à sa famille euh, éplorée ses condoléances. À ce jour, 1433 cas ont été déclarés positifs, dont 493 guéris, 12 décédés, 1 évacué et donc 927 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collectivelle, les gestes barrières. Je vous remercie. asalaamaaleykum askan wi maa ngi leen di jottali lim bi ñu am tey ci mbas mi ñu naan Covid 19 ci fii si suñu réew ci ba tey bi di juróom-benn fan ci mois de mai 2020 jot nañu résultat virologique yi ci. junni ak téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak ñeent dellu nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméeri contact am nañ ko mooy yi nga xamante ne ñu ngi koy saytu te di ko topp ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñeent ci ñoom moom la wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi pikin am na benn benn tali am na benn Sédhiou am na benn Vélingara itam am na benn ci malaat yi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital feebar ñaar fukk ak ñett ci ñoom bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu nag juróom benn cas grave yi nga xamante ne ñu ngi ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci malaat seen wér-gu-yaram ñu ngi am tan comme niñ leen ko waxee démb ñu ngi am nakar di leen wax ne Sénégal amaat na weneenu nit bu génn àddina mooy tax mu tollu léegi ci fukk ak ñaar kooku nag waxambaane bu am fanweeri at la ak juróom-ñaar ñu ngi jaale waa këram te di ñaan yàlla xare ko ajjana ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mii ñuy wax Covid 19 ñëwee ci Sénégal ba léegi ñu ngi tollu ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci li nga xamante ne ñooy ñu am doomu jàngoro ji ci yooyu ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett wër nañu fukk ak ñaar génn nañ àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñi nga xamante ne ñoo tëdd tey ci lal hôpital feebar ñu ngi tollu ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé ak l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ne lépp loo xamante ne mun nañ ko def te ñu dikkal leen ko ngir feebar bi ñuy wax mbas mi Covid 19 dootul dugg ci senegal te bàyyi wàllante bi itam loolu yépp ñu ngi leen di ñaan ñu def ko rawatina ni ñu ko waxe woon suñu mag ñi. suñu yaay yi suñu papa yi suñu tante yi nañu def lu ne pour ñu toog ci kër gi bañ a génn lu bari ci mbedd mi rawatina tamit xale yi tamit nañ leen di gën di topp di saytu ngir bañ leen indil jàngoro ji ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam